fi invité d'ailleurs ndax dañu amoon fii fan yee passé benn daje ci église bi ñoom ñëpp bi ñu wàccee ñu daw ñëw fekk ñu ba foofu ne bëgg nañu ñu ñëw seet si leen seen école loolu aussi buñ ko defee man ak ñi ma bokkal liste Benno Bokk Yaakaar bi yëpp euh, dafay nekk loo xam ne dafay gën a dëgëral euh, suñu programme bi ñu nar ndax dañu taxaw ne dañu bëgg population Sicap yi jox ñu ndombol maire ci biir commune bi loolu aussi buñ ko bëggee du wut ndomb rek moo tax mais dañu am vision ndax euh, jàpp nañ ne ci wàllu jàng bi ci wàllu formation bi ak ci wàllu lépp luy jëm ci wutal environnement bu mën a jox ndaw yi xëy dafa nekk suñu première priorité fii ci commune bi ak wér-gi-yaram bi ak yëngatu ci koom beeg yooyu mais tey fii ñu ñëw ci école bi wan nañu ne lu bëri euh, war nañ ko fi gën a taxaw moo xam ci wàllu école bi ci boppam ni mu mel ni mu bindoo ci environnement bi moo xam ci dimbale way jur yi ñu gën a mën a bàyyi seen doom yi ci école bi moo xam aussi ci xarale ak matériel bi mu laaj pour xale yi mën a gën a jàng ndax tey ni ñu gisee àdduna bi ak violence bi fi am ak euh, yi nga xam ne yu bëri da ngay dem banaan ndax xale yi xam nañu loolu yëpp école bi daf ci am taxawaay njaboot gi am ci taxawaay kenn ku ne ci société bi am ci taxawaay ndax boo bu ñu jëlee misaal rek li xew démb ci nawetaan bi ci tëngéej metti na te ñaare yu mettit yooyu buy am ñi gën a néew doole wala ñi gën a faible wala ñi gën a tuuti ñoo ciy gën a patir kon loolu foog ñun ñëpp ñu delloo si suñu xel Euh, gën a ñaax suñu doom yi ca ba ñuy tuut tànk ci nan la taxawaay war a mel lan la ñuy leen di wan comme message parce yooyu yëpp dañ koy xeep mais mooy jur ndax li nga jëmbat rek ngay récolter comme li nga jëmbat ngay récolter nag ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy tuut tànk yi ci ñuy nekk ci école bi foofu la ñu war a déparé moo tax jàpp nañ ne ñun bu ñu jëlee commune Sicap bi lépp lu jëm ci bourse dinañ ko gën a téye ba nga xam ne dinañ mën a dimbale way jur yi ci xale yi gën a mën a des ci école bi mais aussi jox leen ay jumtuwaay yu mel ni fourniture yu mel ni cantine scolaire yu mel ni yeneen xeet yu ni mel yoo xam ne daal dina bokk ci luy gën a mën a dimbale way jur yi ci ñu gën a mën a yar seen doom école bi jël wàllam kër gi jël wàllam ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi aussi jël seen wàll en tout cas ñun bés bu ñu nekkee maire muy man muy tête de liste proportionnelle Ndeye ak équipe bi ñu nar a àndal yëpp incha allah école bi formation bi ak employabilité bi des jeunes day nekk suñu premier axe ci li nga xam ne moom lañ fas yéene jagleel waa jër jërë ngeen jëf.